bi ñu leen di wax rek ñun lépp loo xam ne dañ ko am suñ ko indee HLM dañ ciy fier ndax amuñu lu dul HLM moo tax tey événement yu mel nii dañuy préféré di échanger teg ñoom su dee ci korité su dee ci tabaski parce que population HLM rek lañu am tey loolu moo tax tey ñu def lii ci tam xarit bi jël ay nag dugal ko ci commune bi jël ay nag indi ko ci foo xam ne moom la ñu dëkk pour ñu xol tey askan bi ku nekk loo ci mën a am tey nga jël ko ci tey loolu moo ñu inspiré ci lii ñu def ko wa ce que je veux man je ci wax que ku euh, porte parole Birame Ndiaye Rose na ci parce que am faire fenn foo xam que je fa que ay zone ne parce que nit ki def dara ba choses taxaw daan man def li du fóot yi te ñaan chaque année de ko commune HLM ndax ñun HLM rek la HLM mais tam suñ ko mënee de dafa am tam ñenn ñoo xam ne ñoom ñoo ñu ci jàppale ñu ànd ci ak ñoom muy waa mouvement sa dëgg-dëgg ñu ànd si ak kenn koo xam ne moom mooy sun parrain muy honorable député Farba nga xam ne jàpp na ci bu baax a baax a baax bu ñu commencé ba tey mouvement bi moom lañ ci àndal te moom tam mu am kenn koo xam ne mooy kilifaam bëtam lay xoolee tànkam lay doxe

ku ci nekk yónnee na la nag boo xam ne mi ngi aw ci honorable député Farba Ngao aw si sama loxo. mais di wax politique Kandé mën na am divergence mën na am ñëpp mënuñu bokk jëmandoo fenn mais ma dellu ci ginnaaw tuuti rek tey Ousmane Tanor Dieng yàlla na yàlla yokk leeram bu mu génnee àdduna. ku ci mel ne ñoom Idrissa Seck dañu taxaw seedal ko ne tey homme d'état mi ngi nii koo xam ne yóbbaale na secret d'état yu bëri te mësu ko génne te tam ñu xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk lu maam Abdou Aziz si doon wax rek yal na yàlla tàbbi xol yi ba ñun ñëpp ñu nekk benn ba tey opposition ak pouvoir ñoom ñëpp ñu nekkaat benn pour intérêt Sénégal bëgg naa commune HLM ak rawatina son excellence le président Macky Sall mu bàyyi xel ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye nag moo tàllaloon loxo ki ñu wax honorable député Farba Ngom pour mu jàppale ko ci commune HLM Farba tàllal loxo ku ñu wax si Ahmed Tidiane bay loxo pour mu jàppale ko ci élection yi yàlla def bi ñu duggee ci élection yi ak ñi ñu àndaloon nag ñëpp ci commune bi ñu gagné 44 bureaux yëpp teg ko ci loxo honorable député Farba Ngom mu teg ko ci loxo son excellence le président Macky sal mu jeex nag Cheikh war a toog commune bi waxtaan seen biir ne Cheikh pourquoi ngay toog am na leneen loo war a mën a def mun a yéen fu ngeen ma teg rek foofu laay tegu boobu léegi nag Cheikh toogul di jàppale population commune aselem ci feebar faju tabaski jot mu taxawu leen bu korite jotee mu taxawu leen képp koo xam ne yaa ngi si commune bi ta feebar Cheikh Ahmed Tidiane bay mi ngi lay jàppale. nag yi nag c'est pas la première fois jënd na 30 nag 30 nag yi yëpp man Birame Ndiaye Rose porte parole mouvement sa dëgg-dëgg maa ko yóbbu ci koñ yi nekk ci commune aselem yëpp. nit nag soo ko bëggee jàppale da ngay seet lay bëgg-bëggam nga def ko. dégg nañu rek gis nañu le gardien de la constitution di le président Macky Sall jëf juré ji mu def ci xarit ji jëfam jiitu won na lolu dégg ngeen ñu ni yóbbu na ci jàkka yi ngeen ñu ni yóbbu na ci koñ yi barki demb rek ma juggé Thiès gis ay nak yu bari waaj mané kuko indi ñu ni soxna Marème Faye kon nak nit soko ko jappalé da ngay sét li bëgg-bëggam nga def ko loolu la Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye def fii ci HLM lu mu def mooy jënd ay nag ñu mu ko jox population bi waxuma rek mouvement bi de dégg ngeen léegi mu wax ni bu fekkoon ni day am ñuy ñàkk waa mouvement bi ñooy ñàkk mu jox ko population bi.